voilà lu ndaw la rek euh, ma bëggoon partager ak yéen parce que bon euh, dañuy nekk quand même ay citoyen sénégalais donc je crois que wax nañu war nañu en fait war nañu jox titre boobu quoi ba ñun ñëpp ñu sentir euh, parce que bon léegi nii dama génn di doxi samay soxla ci rond point yu Cheikh Anta Diop de Dakar bi policier bi arrêté ma façon bi ma arrêté sax bon incident bu taxaw pour dire vrai mais bon après je me suis bon peut-être que Pape Makhtar Diallo la taxawul mën na doon leneen ba taxaw parce que en réalité euh, amul fenn foo xamante ni dañ leen ni booy arrêté nit danga ko ni yow hee taxawal yow hee yow laay waxal taxawal ne xool naa ko bon naru ma woon taxaw quoi pour dire la vérité parce que yow hee yow laay waxal taxawal du noonu la ñu interpellé nit d'accord euh, du noon la ñuy interpellé nit yow hee laay waxal taxaw ma ni bon gaawul bàyyi ma muñ rek taxaw ma ñëw taxaw salué wul deful dara mu ñëw taxaw mu ni ma permis carte grise kii bi jox ko permis jox ko carte grise jox ko assurance mu yem ci permis ni ma doy na man ko d'accord ma toog rek di ko déglu mu pare bindal ma contravention euh, defal ma attestation ni ma utilisation euh, utilisation euh, usage du téléphone au volant man ko may sëñ xanaa balaa nga may defal attestation laaj nga ma sama permis ma yitti jox la ko balaa nga may defal attestation xanaa sax au moins di ma signifier ni ma lii moo tax ñu arrêté la mën ko déjà benn ñaareel bi laa doon def téléphone bi da nga gis ma woote da nga dégg ma woote wala la man maa ngi nii sa kanam laa la droite ban instant laa utiliser sama téléphone man ma non parce que euh, téléphone bi mi ngi nekk sa loxo man que non téléphone bi mi ngi nekk sama loxo ça ne absolument rien parce que dégg nañu tubaab usage mooy nga utiliser usage ak tenir euh, téléphone au volant c'est c'est c'est deux deux deux choses différemment xam nga diamétralement opposé ma ni ko d'accord léegi man dama bëgg en fait mu génne téléphone am ci poche am wala muy dugal téléphone am téléphone bi nekk ci loxo ma ni ko en man loolu la parce que man téléphone bi dama ko tegoon fii mu daanu ma yifti ko le temps ma koy génne nii di ko dugal sans poche rond point du ma nekk nag ci rond point di naan damay damay damay damay damay dawal ba noppi di jël sama loxo di ko dugal sans man euh, moment bu ndaw boobu nga xamante ni mën naa def euh, preuve d'inattention mën na ma jural jee donc je préfère téléphone bi ma def ko nii ba wër rond point ma dugal que téléphone bi fii laa ko mun ma non non visage téléphone man que non sëñ bi man sama téléphone dam lay may sax nga ubbi nga xool ndegam dama envoyé nga xool ndegam dèjà ndegam euh, dama envoyé message wala dama dama dama dama dama woote téléphone wala dama wuy tal dam lay jox léegi nga xool historique appel mun ma euh, déggoo ma de usage def usage def je comprends rien léegi loolu yëpp grave mu def attestation attestation bi ñu ni ma il devra se présenter pour retirer au commissariat le 15 le 15 demain dimanche dimanche laa war a dem présenté wu commissariat pour retirer li nga xamante ne mooy sama permis dimanche jour jour férié euh, jour jour euh, weekend dimanche du jour ouvrable ñu ne ma léegi man dimanche laay dem retirer sama sama sama permis à côté am na ay collègues am yu fa nekk parce que il n'était pas seul waa Point E xam naa leen bu baax a baax am naa fa deux plaintes plainte ba ñu ma agressé Point E la nekk plainte benn bi nga xamante ne defoon naa ko aussi pour harcèlement point e la nekk xam naa leen bu baax a baax ay nit ñu respectueux ñoo fa nekk ay nit ñoo xamante ni ñu correct ñoo fa nekk aw ma ci ñoom benn benn benn problème wax dëgg yàlla fu mu fu ñu ma gisee dañuy wàcce seen kii damay wàcce sama vite nuyu leen waxtaan kaf ak ñoom mbalak dem mais kii ñëw taxaw ni ma usage téléphone au volant mën nga man déjà laaj nga ma sama permis jox naa la ko mais avant nga may naan da nga may bindal attestation lu mu mën ci doon gëni ma yow de lii nga xamante ni en fait nga def mooy da nga utiliser sa téléphone au volant moom laa lay attesté nii mais non aucune explication aucune explication mu defal la attestation et pire encore ñu defal la attestation boo xamante ne da nga war a dem jëli ji ko le dimanche attestation boo war a dem jëli ji ko le dimanche ba wan ko collègue am yi ni leen may grand man damay laajte parce que xaw ma bu nekkee man ma téye sama téléphone di ko dugal sama poche utilisation la oui wala non ñun ma non bon garaawul garaawul demal rek nga gérer ko man leen beneen mur bi le quinze da ngeen liggéey ñun ma bon xaaral ñu dem ñu wax ko mu changé ko mu dem mu ni ko du ko changé mu dem mu ni du ko changé le quinze bii nii dimanche bii nii dimanche dimanche bii nii laa war a dem point e kan fay fekk bay naan damay retirer sama permis attestation bi war a jeex dimanche léegi donc man waruma dox samay soxla dimanche quoi bu ma doxee samay soxla ñu ne ma ok da nga dawal oto te yoroo permis boo génnee attestation ñu la attestation bi valable en fait man dama comprendre quoi dama bëgg xam ñun ay ay citoyens sénégalais lañ maa ngi koy dégg mi naan waaye man contrôlé naa ku ne man nga contrôlé ku ne nga ñàkk contrôlé man loolu sama yoon newu ci man en fait je suis insignifiante vis-à-vis la police police institution la dañ ko jox bu ñu amee problème ci police dañuy jëm la preuve wax naa ko am naa yoo xamante ni ñu ngi dormir ci point E benn plainte boo xamante ni dañ ma agressé point e boobu police e boobu la la la la bi nekk ba tey jii ba sànq AA 939 EP oto bi nga xamante ni ci la euh, agresseur yi ma agressé woon ci la ñu nekk oto boobu ba tey mun ñu ko gis ci Dakar plus de trente personnes ñu ngi ma doon woo ma jël seen numéro téléphone def plainte aussi biir police point e. mais quand am na yoo xamante ni vraiment waruñu ko en fait waruñu ko doxal suñu diggante bu nekkee ne dañuy am yeneen problème personnel mais wax nañ ko mën a génne quand même ci cadre professionnel pamantemps bu la neexee neex na la bu la neexul neexul la loolu beneen débat la mais au moins boo koy attesté na doon loo xamante ni li li en fait li jaadu la quoi man bu ma nekkoon di utiliser sama téléphone wallahi azim bu ma ñëwee wax dama lay naan carrément ah sëñ bi lii de maa ko def wax dëgg yàlla je le reconnais léegi la da nga boo ma jël bu ma baal ma mën mais man kon ne dem sama mais man déjà utiliser wu ma sama téléphone au volant man mi ko permettre ni ko duggal nga xool sama historique appel parce que man j'en ai pas téléphone bi dañ ko synchroniser ak oto bi bu ma woowee day décrocher directement ci oto bi bu may bu may utiliser téléphone bi sax à supposer mu nekk cas exceptionnel ma war a utiliser sama téléphone mais commande vocale lay utiliser te bu ma utiliser commande vocale ci si dina dina dina dina dina woote j'ai pas besoin de manipuler le téléphone wala dooma nit nag damay dawal oto ba noppi dinaan damay nekk mais vraiment vraiment vraiment lii en fait abus la abus abus kese la du leneen loo xamante ni du lu abus ñu bindal la nag loo xamante ni ñoom xam nañu ni léegi bu ñu wàcc léegi ñu wàcc léegi man mënu dellu en fait mënu ma dellu euh, point E balaa may dem point E ñoom ma fekk ñu wàcc te suba duñu liggéey balaa may dem point E fekk ñoom ñu wàcc parce que en fait dama am rendez-vous mënu ma ko rater effectivement Mendy li nga wax la bàyyi ba lundi nga doogay dawal oto parce que en réalité boo dawalee oto bi ñun la ok amoo permis waroo dawal oto en fait c'est ça parce que ki la bindal attestation boo xamante ni dañ ko def dimanche dimanche ñëpp xam ni dimanche du jour ouvrable ñun la da ngay dem ci bureau contravention commissariat nga nga nga nga mi il devra se présenter pour au commissariat de Point E le 15 euh, octobre 2023 à 9h dimanche. moomu mu am ni ko li nga def nii quinze bii changé ko def ko seize mun ko du ko def tegal ko si kii moo gën a ndaw ci ñu may contrôler trois mille francs yii du dara parce que en réalité même bu nekkoon cinquante mille wala cent mille wala leneen sax loolu du problème bi somme bi du problème bi problème bi mooy est-ce que ñun ay citoyens sénégalais nañu est-ce que ñun am nañu droit ñu respecter ñu jox ñu cër bi nga xamante ne mooy cër bi ñu yelloo déjà wax naa ko léegi ba mu may arrêté yow eh la ma wax yow eh taxawal ne yow laay waxal hésité naa wallahi azim hésité naa te bu ma nekkul woon peut ci plateau télé yeeg ci rajoy di wax wallahi du ma taxaw wallahi du ma taxaw bu ma nekkul woon ci télé yi parce que nag boo en fait yenn yi boo ko defee dañu lay naan dafa am looy jaay moo tax bu ñu bëri tey ji da ngay da ngay bës sa accepté ko parce que da naan non bu ma réagir nii dañuy dafa am loo leen di jaay mais nga ñëw tey jii taxaw malgré que moom mi ngi la interpellé interpellé boo xamante ne du du du yoon en kenn permettre u la loolu yow eh yow laay waxal taxawal ne ma ni d'accord bàyyi ma taxaw ma taxaw ma jox ko permis bi jox ko carte grise jox ko euh, non avant avant ma koy jox carte grise mun ma jaru ko ma toog ba tey mu jox ma attestation donc moom jël na sama permis jël na sama permis defal ma attestation te waxuma man lan moo tax mu attesté ma balaa ngay bindal nit attestation xanaa au moins di nga ko ñëw ni ko sëñ bi lii nga def lii nañ lay toppee ba ma xoolee attestation bi laa gis usage euh, du téléphone au volant man nga usage du téléphone au volant mais sëñ ban téléphone laa utilisé sama téléphone ñaar yëpp dama lay permettre nga dugg si historique appel wala nga jël samay message whatsapp nga xool message bu gën a récent ban heure moom utiliser wul téléphone bi lan laa ciy lan laay doyee téléphone bi di ko utiliser au volant tegal la si ni la léegi yow da ngay dem récupérer ci lii dimanche quinze heures ñu ne la dimanche du jour ouvrable ñu ne la ok da ngay continuer euh, da ngay da euh, du ko changer nii la la ko joxee noonu daal en fait euh, yenn live bu ñu koy def du pour jéem a ay institutions wala di jéem a yàq deru police wax naa ko léegi point e, point e, ci commissaire bi ba ci ci gën a ndaw yàlla xam na ni saay yi amee jafe-jafe fa laay dem parce que ay xaram kese laa fa moo tax lii jaaxal ma torop si agent boo xamante ni point E la nekk man policiers yi taxaw ci tali bi amul kenn koo xamante ni sekk naag man xaar ma yàlla nuyoonte kaf reetaan romb dem dinaa fexe ba mu du ma du ma en fait man ay affaire ay dawal oto bu amul ay këyit yooyu neewul samay mbir bañ naa ko ba assurance par six mois lay jël li ñuy def naan da def nii boo defee nii da tooñ man du ma ci dugg parce que en réalité xam naa sama bopp neexuma deret donc du ma tooñ mais quand déjà yow ñu ngi lay interpellé interpellé boo xamante interpellation boo xamante ni teguñu ko fenn yow eh yow laay waxal taxawal nii mais di kii wax ak sa doom sa boo waxee ak moom noonu peut-être sax mën na la bañ a faale mu bës sama xol di d'accord policier la tenue la sol bàyyi uniforme la sol bàyyi ma taxaw ma taxaw nga laaj may yëpp jox la ma noono permis bi kase doy na ma jox la nga taxaw bind nga bind bind bind ba pare jàpp ma jox ma li nga xamante ne mooy attestation te yow waxoo ma benn benn benn benn benn benn mbir waxoo ma lenn en fait lu dul jox ma kayit bi kayit boo xamante ne nee nañ ma ma dem commissariat Point E le quinze réew mee ngi noonu en fait cest dire euh, lii mooy sentiment yi nii mooy tax ba nit ñi en fait di am ay ressentiment di am yenn mbir yoo xamante dañ koy wax te ay mbir yoo xamante ni jaadu la dañu respecté nañu respecté sénégalais gis nga citoyen dafa am àq am yelleef ñun ñu ngi fexe le tout pour nekk ay citoyen modèle nañu dimbali ci loolu te nañu respecté citoyen sénégalais citoyen sénégalais nag dafa mel ni moom moo gën a suufee ci citoyen ñu ne ci àdduna bi yëpp foo dem ñu gëdd la jaay la doole wax la wax joo xamante ne wax ju wax ju en fait wax yu wax yu ñàkk teggin la wax yu ñàkk teggin la yow yee eh, yow laay waxal taxawal nii xanaa sax boo ñëwee man danga may attesté dama utiliser sama téléphone au volant te du dëgg utiliser ma benn sama téléphone au volant wallahi azim du dëgg la preuve dama ko ni jëlal sama téléphone nga xool historique appel mieux jëlal nga xool whatsapp yi nga xool ndegam dernier message génn na wala génn ba rek ci diggante bi may naan yow yow laay waxal taxawal sa kalam naa taxaw de donc aw ma fi taaw naan dama fay supprimer quoi que ce soit léegi lan laa utiliser sama téléphone bu nekkee musique la ma bësee lii mu dam ko sax dul def en fait bu demoon ba koy def war a passer appel commande vocale lay utiliser mais ñu ni la ok dana utiliser sa téléphone au volant te yow signifié wu ñu la ko notifié wu la ko ñu mu jeeg saa rek bindal la attestation tegal la ci attestation bi mu defal la ko kañ le 15 ni la dimanche nga war présenté wu ci commissariat point e, à 9h dimanche xam na ni du jour ouvrable xam na ni dimanche kenn du nekk te ñoom xam nañu ni à treize heures wala quinze heures ñoom dañuy teel a wàcc seen convention léegi donc ñoom bu ñu wàccee tey di laa leen mën a jotaat li ma war a dox dimanche yëpp bu ma koy dox taxi laa war a jël wala oto wala leen laa war a jël mais waxuma dawal sama oto fan nañ ko teg fan di leen jaajëfal bu baax a baax na nañuy dénoncer nañuy continuer di dénoncer nañuy continuer di dénoncer lépp li nga xamante ne lu jaaduwul la parce que en réalité tant ñu ngi continuer di bàyyi yenn sentiment yi di wane sentiment impunité la mi am ci réew mi nee ñuy def lu leen neex dañuy continuer di wax nañuy continuer di dénoncer lépp li nga xamante ni injustice la te nag wax dëgg yàlla maa ngi koy wax léegi euh, lu mu tudd AA 939 EP oto bi nga xamante ni c'est les cinq personnes yi ma doon agressé man ak maam Birame wàcc bu nekkee dafa mën a réer de février ba tey jii nii mun ñu ko gis seen Sénégal war nañ mën a xoolaat suñu bopp mais bon day wane quelque part rek li nga xamante ne moom nañu yàgg di dund te yenn yi aussi bon voilà dañ xam ni que vraiment yenn yi naaysul quoi yenn yi naaysul nit ki bu demee ba am yenn mbir yoo xamante ni da nga ko koy ñaanale wala da ko koy kiiwee mais euh, nga nga war une indifférence totale kii intéressé wu la bëggoo ko mais nga bàyyi ko mu dox ay soxla bu tooñee nag bu tooñee nga xam ne kii dafa tooñ nga teg ko ci yoon mu baax ak Mbodj sans déggoo lu ma bu ma utiliser woon téléphone dinaa ko contesté ma ko contesté moom ci boppam dama ko ni jëlal sa jëlal téléphone bi nga xool dèjà naka sama historique appel am na appel boo xamante ni moins de trente minutes la dèjà amul benn ñaareel ba doo gis message boo xamante ni moins de trente minutes la parce que moins de trente minutes mooy peut-être waxtu bi muy génn sama kër man ko moins de trente minutes amul message amul appel sama téléphone utilisé wu ma ko seulement téléphone loxo le temps doon romb rond que sens giratoire la boo nekkee dangay ngay da ngay dangay dangay da ngay euh, da ngay da ngay da ngay dawalee prudence booy dawal prudence nga war a jiital mais surtout nag bu nekkee sens téléphone bi nga téye ko nii ana benn téléphone bi sax parce que lii moo tax téléphone bi moo koy moo koy euh, wattati na benn bi wadd na téléphone bi comme par exemple wadd na nga xëcc nii def nii téléphone bi teg te tegoo sax ci ko laabee def nii téléphone bi di dawal sa oto nii normal ñun la da nga utilisateur ko man ko dèjà bu nekkee utilisation kay utilisation xam nañ ko dégg nañ ko même bu nekkoon dama téye sama téléphone sax sama teg ko fii xanaa rek may euh, lu mu tudd da nga euh, sa téléphone au volant mais utiliser woo ko et bu nekkee loolu yëpp sax am na avant ñu lay defal attestation xanaa dañ taxaw ni la sëñ bi nga ni naam ñu bi wane